salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf mbokku seetaankat yi yéen ñi taamu seen télévision nationale El Mauritania ngir jël fi xibaaru marax bi ñu doore ak tukki njiitu réew mi Mohammed Ould Cheikh El Ghazouani mi nga xam ni nag fële ca Londres am na jataay bu am solo boo xam ne amal naka ak ki nga xam ni moom moo jiite group boobu nga xam ni moom mooy British Petroleum di BP ak kilifa ga di Bernard Looney ci ñaari maanaam kilifa yooyu jotaay bi nag mi ngi seqoon ci waxtaanee nan la a mën def ngir mën a fexe ba lépp loo xam ne jël na euh, ci maanaam investissement ñu koy defal ci biir réewu Mauritanie mu doon loo xam ni yaakaar la ak njëriñ la boo xam ni réewu Mauritanie dañ koy am loolu nag mi ngi amoon ci teewaayu jëwriñ ji nu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mine ak pétrole di Mohamed euh, di ki nga xam ni moom mooy Abdel Fattah ak yeneen kilifa yu kawe daraja bokk na ci sunu ambassadeur bu nu foofu foofule ci réewum euh, Londres ñu desandi foofu ba tey ji xam ngeen ni euh, nag loolu tamit que réew Mauritanie ak euh, ñi nga xam ni nag ñoom ñooy euh, kuréel googu di nga xam ne ñoo toppatoo lépp lu jëm ci wàllu pétrole ak gaz am na nag xaatim bu am solo boo xam ne amal nañ ko ci teewaayu nag kilifa réew mi ki ko def ci côté réew Mauritanie nag ci wàllu réew Mauritanie mooy ki nga xam ni moom mooy jëwriñ ju ndenk lépp lu jëm ci wàllum pétrole di Mohamed Ould Abdel Fattah ki nga xam ne moo ko signé ci beneen wàll wi mooy ki nga xam ni moom mooy Christy Norman ñaar ñaari euh, kuréel yi nag am xaatim boo am solo boo xam ne amal nañ ko ngir rek mën a fexe ba lépp loo xam ne njariñ la ci wàllu euh, pétrole boobu gàllu gas lépp tamit que mu mën a nekk loo xam ne dana jëriñ euh, ñaari kuréel yi réewu Mauritanie nag am ci ak jéego boo am solo gannaaw bi nga xamee ni xam ngeen ni am na kay maanaam mbànd yu bare bare yoo xam ne ñoo ngi koy euh, séntu lu toll ci at rek ak lu topp euh, réew mu tëndik séntu loolu nag moo waral tax euh, groupe boobu nga xam ne nag ñooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu pétrole ak wàllu gaz ñoom tamit que ñu am ci xarañte seq ka ak réewu Mauritanie waxtaan ci tamit waxtaan wu am solo ngir mën a fexe ba loolu mën a jëm ca kanam gannaaw loolu xam ngeen njiitu réew mi Mouhamadul Cheikh El Qazwani bu mu egsee foofu tamit que am na jotaay bu am solo boo xam ne amal na ko ak kilifa yi nga xam ni euh, ñoom ñooy euh, ñii nga xam ne ñoo teewal sax laay wax ni euh, maanaam réewu Mauritanie doomu réewu Mauritanie yi nekk foofule ñooñu nag leen a jiite di ki nga xam ni moom mooy kii nga xam ni moo leen a jiite moom gisante nañu mooy ressortissant yi nga xam ne ñu nekk foofu waxtaan ak kilifa réew mi ci waxtaan wu am solo wax ko seen nekkin foofule waaye seen jafe-jafe ak lépp loo xam ne ñu ngi koy dund foofule ci réew mi nga xam ne mooy réew britannique euh, ki nga xam ne nag moom moo jiite euh, jotaay boobule euh, maanaam mooy njiitu réew mi waaye tamit àndoon na ci ak ki nga xam ne moo sës rëkk ci moom di loxo ndeyjooram ambassadeur bi nga xam ne moo toogal réew mu tani foofule. moom tamit que toog na ci jataay boobu la bokk na ci kii di Thiondi Sidibé bi nga xam ne moo toogal ñii nga xam ne doomu Mauritanie foofule ca Londres. gannaaw loolu am na benn nag mbootaay bu am solo boo xam ne tamit que amal nan ko bi nga xam ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitee loolu moom jiitu réew bi nga xamee ni nag ànd na ak kuréel googu bi mu egsee xam ngeen ni noonu lan ko màggalee sargal ko ci bu mu egsee foofu la nga xam ni moom mooy ca Londres moom nag njiitu réew mi mi ngi àndaloon nag ak ki nga xam ne moom mooy soxnaam di Marème Mint Da bokk na ci ñi mu àndaloon Cheikh El Kabir euh, Moulay euh, Dahir bokk na ci nga xam ne mooy jëwriñ ju dénk lépp lu jëm ci wàllu koom-koom euh, ki nga xam ne mooy Mouhamed Ould Ahmed Ahmed mi nga xam ne moom lu dénk lépp lu jëm ci wàllu pétrole ak wàllu mbell yeeg ak wàllu énergie bokk na ci Mohamed Ould Mohamed Lamine mi nga xam ni moom mooy loxo ndeyjooram kii di Issoulkou Ould Ahmed Izid bi mi nga xam ne moom moo toogal sunu réew foofule ci réew ma nga xam ne mooy ca réewum Londres bokk na ci jataay boobule ñu dem fële ca diwaanu Nouadhibou xam ngeen ni jëwriñ jum denk lépp lu jëm ci wàllu wér gi yaram di nga xam ne mooy docteur Mouhamed Nediru Ould Ahmed ànd ak waali ba nekk ca diwaan boobu di Mouhamed Ould Ahmed Salem Ould Mouhamed Rare ñoom nag ubbi nañu benn nag bërëb boo xam ne hôpital bu mucc ayib la boo xam ne foofu la ca diwaanu Nouadhibou euh, ñoo ngi fay euh, faj lépp ñoo xam ne ñoo am jafe-jafe ci wàllu xool loolu tamit que mu doon loo xam ne lu mucc ayib la wax nañu nag ni euh, mbir moomu daal nekk na loo xam ni suñ ko xoolee ci diwaan bi lu gulet lu ñuy wax ne sax moo fa mas a am loolu nag mu doon loo xam ne lu am solo la ki nga xam ne nag mooy directeur bi jiite maanaam hôpital boobu docteur Mouhamed Ould Ahmed moom doon nettali ak doon nag leeralal ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ci taxawaay bi nga xam ni ñoom ñoo ngi koy taxaw ak li nga xam ni yaakaar nan ka am le foofu lu jëwriñ nag moom ci wàllu boppam euh, bi mu seetee loolu gëstu ko wax na tamit ni daal euh, am na yaakaar bu baax a baax a baax ci diwaan boobule di Nouadhibou waaye tamit que ci béréb bii nga xam ne tamit que moom lañ leen defal ngir ñu sàmm ko taxawu ci def seen kéemtulaay kàttan ngir mën a fexe ba lépp mën a dëppoo ak yoon ñi nga xam ne tamit ñoo amee jafe-jafe ak loraange ci wàllu woowule tamit te ñëw di fa faju ñu maanaam di leen toppatoo ci ninu nga xam ne ni noonu lañ ko bëggee loolu tamit dafay fexe ba dalal xelu kii nga xam ne moom moo euh, feebar di ñëw ci yenn béréb bi mën ko sàmm ngir mën def seen kéemtalaay kàttan ngir loolu mën a jëm ci kanam gannaaw loolu xam ngeen ni jëwriñ ju dénk lépp lu jëm ci wàllu njaboot jeek wàllu euh, maanaam euh, ndimbal bi ak lu ci aju euh, fële ci diwaanu Elmina foofu nag xam ngeen ne am na ndaje mu am solo boo xam ne jëwriñ ji demoon na fa moom kii di maanaam Néné Oumou kan Kane gannaaw loolu tamit que ànd ak maanaam mbootaay bu takku boo xam ne ñoo demoon foofu foofule loolu nag lan moo ko indi woon rek mooy foofule ñu doon waxtaan nag waxtaan wu am solo ak jigéen yoo xam ne ñoo ngi fa woon ndaw ñi loolu fu doon fa waxtaan nag waxtaan wu am solo ngir mën a fexe ba lépp loo xam ne dafay jëm ci bi nga xam ne dañ leen ciy jàppale lu elmina nag ki nga xam ne nag mooy kilifa gi jël kàddu gi ci turu uh, jëwriñ ji nu dénk lépp lu jëm ci wàllu njaboot jekk wàllu uh, maanaam uh, jigéen ñi moom wax na ni lu toll ci téeméer ak juróom fukki ndaw ñoo xam ne tàggat nañ leen fa wax leen seen nekkin ak taxawaay bi nga xam ne war nañ ko taxaw jëm ci wàllu informatique ak li ci aju loolu tamit mu nekk loo xam ne lu am solo ndax dañ leen mën a jàppale si seen nekkin ak seen dundin taxawaay bi nga xam tamit que moom la ñuy yaakaar ni ñoom ëllëg daanu mën a tamit que nekk ñoo xam ne daan ci xarañte lool am ci tamit que ëllëg def dara si seen poos ñoom tamit wax na nu daal rafetlu nañu nekkin bi nga xam ne nekk nañ ko foofu euh, foofule ak euh, tàggatu bi nga xam ne ñoo ngi koy tàggatu ñu fàttali rek téeméer ak juróom fukki ndaw ñoo xam ne tamit que daanu am euh, maanaam lii nga xam ni njëriñ la ci tàggatu boo nga xam ne ñu ngi leen tàggat jëmale ko ci wàllu informatique. mbokk yi loolu moo doon xibaar yi fi jotoon ñu leen ko doon jotali di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ko sàkk seen fi nga mën tollu ko ñaanal yàlla na yàf jàmm